waaye di siyaar suñu jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Ibra dalal ñu muy sëriñ Assane Baye Fall di siyaar sëriñ Gunda Fall bu baax a baax a baax a baax di siyaar mbokk yeeg taalibe yi yëpp rek ñi teew ak ñi teewul waaye di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou yàlla yàggal ko fi te dolli ko wér nga xam ne lépp lu ñuy wax ci moom la ñuy tàmbalee te ci moom la ñu war a yem ndax mooy suñu Sëriñ Tuubaa moom la ñu yàlla dajaleel jamono te mu rafet lu muy jëf lool te doon kilifa bu yëkkatiku yitte doon ko am aaju ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi te kenn mësu koo xamee leneen lu dund Sëriñ Tuubaa te muy dëgg ci moom ba fii mu nekk nii boo ko fekkee ak taalibe lay dund te discours am bi mu mujjee def rek soññe na lépp waaye màggal gi moom daanaka du jar a guddal ndax jotaay bu xat ak jamono ju xat te mbooloo mi fi nekk tam daanaka soññ leen du jafe ndax lépp luñ fi mës a lu mu rëy rëy rëy daan nañ ko ndox bi rafet boobu ba léegi loolu day tegtale li sëñ Muntaxa wax ne yéen taalibe yi wàcc ngeen man maa des lu fi mës a am rek mu jàll ci jàmm ndam lu rëy am ci xol yëpp sedd dafa fekk yéen ñii ñëpp ñun ñëpp ak waa réew mi yëpp ak fu taalibe nekk rek jël kaalaam takk ci ndiggam fas yéene liggéeyal Serigne Touba te muy loolooy dëgg ci taalibe yëpp loolu lañu ñu natt ci suñu bopp natt ko ci yéen ñëpp te xam nañ ko te jëwriñ jiite liggéey bi xam nañ ko kon li nga xamante ni moo tax jëwriñ Mouhamad Bamba jóg ànd ak sëñ maam Thierno ñi mu ko war a àndal waa xidma bi yépp di wër daayira yi moo indi nag lii jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall bi kon nag Baye Fall yi kenn mosu leen a mën ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi kon soññewaat rek nga xamante ne nii li ñuy wax naan ku say morom jarul bay boo jarul bay njëgu bay nga kenn ku ci nekk bu leen yem sax ci ñëw ñëw ci daayira bi dugg leen ci kër yi ba bis bu ñu indee sasu maam Cheikh Ibrahima Fall kenn bañ waa kër Cheikh Ibrahima kenn mosu leen a masa mën a wat ci yoonu Serigne Touba ci loolu rek lañuy ñuy soññee di ci soññ suñu bopp nag njëkk soog a soññ ku ñuy soññ waaye seen jàmbaar moom wax dëgg yàlla ñëpp seede nañ ko murit moom liggéeyal Serigne Touba muy dëgg ci moom rek la mës di doxe kon loolu moo waral jotaay bi waaye ñuy ñaan ñu teew ko ay at yu bari bari di nuyu suñu kilifa gi ngom doon jël kàddu gi léegi rek euh, di ko ñaanal yàgg ak biir di nuyu Mbaye mu dul Mbaye mais bëgg xasaayit lool. di ñaan moom yàlla yàggal ko fi ca dolli ko wér. te yéene yi nga xamante ni moom la ñëpp di mébét rek. ngir def ci màggal gi ak yoonu Serigne Touba yi ak def ci njaboot gi yàlla jàppandil ko te lépp ànd ak barke. ci barke xaadimal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam ngir bañ a guddal rek jërë ngeen jëfati. ñu ngeen di sant bu nuyu baax te di leen ziar. di leen baalu àq te di leen baalu àq lu nëbb ak di ñaan suñu borom boole ñu baal ci barke xasida yi di ñaanal sëñ Muntaxa Basiir mu gën a yàgg gën a wér ba li mu yéene liggéey ku tedd gi mu def ko ni ko soobee da ko noonu di ko ñaanal maam Cheikh di ko ñaanal sëriñ Cheikh Jëm Fall ku yàgg fi loolu tànn ak mboolu ak mboolem njabootu maam Cheikh Al yëpp ko ñaanal sëriñ Abbas ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa yëpp di ziar mu baax ñi fi teew ñëpp ñu koy commencé ci sang bi sëñ Gunda di ko ziar bu baax baax eh, di ziar bu baax a baax suñu baay Ibrahima Mbaye di siyaar sëñ Bamba mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Yankooba di siyaar sëñ Abdourahmane ak sëñ Mat Sey di leen wax ne délégation fédération bi sëñ Bamba ngi nii mooy vice président sëñ Abdourahmane mi ngi nii mooy social sëñ Badou Ndiaye ma nga ne moo nekk ci administration bi sëñ Maam Xaas ma nga ne la moo nekk trésorier bi bu dee ci wàllu xas day sëñ Baay Ibrahima Mbaye mën na noo teewal kon mu woo daanaka sëñ Assane min fekk tey moo fi teew ñëpp boo xoolee kon fédération bi ñëpp mun ñoo jëgandoo mais ku ci nekk bu fa kenn jógee rek doy na sëkk ndax li ñuy liggéey ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu lay wax ne kon délégué fédération ba mu ngi fi kon nag ñi ngi rafetlu dalal gi nga xam ne dalal ngéen ñu ko te nii liñ fekk rek moom lañ fi yaakaaroon di soññeewaar rek soññee mooy li nga xam ne mun dañ koo bokk te mënuñu koo séddee muy liggéey Sëñ Tuubaa te liggéey bi nii dong la ñun li ñuy ñor rek mooy ñëw jàng alxuraan sikarulaay jàng xasida te loolu mate ndax ku tedd gi loolu rek bëggoon te ak ak ak baaloonte ak ak ndax yoon yi mënul ñàkk soññente te loolu lépp am na fi kon jotaay moom mat na ba pare kon ñu ngi leen di woo xam ne bu képp kenn toog rek jàpp ne bu ma demul maam Thierno dana wala sëñ Bamba wala kenn dana ñëpp na nii bàyyi suñu yitte tey ñëw ci liggéey bi rawatina ci weer wu mu toll muy fan yi ñu toll muy karawaan beeg fu mën di jëm bu kenn tayal liggéey sëñ Tuubaa kenn waru cee kon ñu ngi leen di soññiwaat bu ñu jógee fet fu mu jëm tamit ñu ngi ci woo képp koo xam yaa ngi ci bi te leen di soññiwaat nag ci màggal gi xam na màggal gi alxuraan ji ñi ngi koy jàng ñi ngi jàng xes day di soññi bépp daayira fu mën a nekk bu daan jàng ñaari kaamil bu jàng ñett def ko àddee sëñ Tuubaa ak xes yooyu ñuy lim ko ban yegg ca màggal ko boo leen fay jàng di leen wax nag alxuraan ji ñi ngi koy jàng ñi ngi jàng xes day waaye màggal gi àddiyee moo koy def te mën nañ leen wax ne fi mu ne bilan zéro lañ nekk kon nag képp ku ci saw sas manqué wala la bay sa kem kàttan defoo ko nanga xam ne màggal gi sooxee am nga ci part responsabilité te ñun ñëpp suñ gaa ci lay doon kon nañ ci góorgóorlu bu baax ginnaaw bi loolu passé sëñ Assane yow mi nga xam ne yaa fi jiite Baye Fall yi ñu maanaam soññee dañ koy boole ñëpp ñu ne ci dëkk bi waaye comme yéen leen fekk tey dañ leen koy adressé yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak sëñ Assane di liggéey li ngeen ko mën a jàppalee mooy lépp loo xam ne soññee nañ ko mu jëm ci fédération bi ngeen taxaw ci ndax moom bu ñuy daje fii réunion lu ñuy wax moom la ci kaw la ñuy dal kon yéen topp ci ginnaawam ngeen jàppale ko ci ndigal yi nga xam ne day bàyyi ko ci fédération bi taw yaakaar naa ne ñun ñëpp ay murid lañ waaye ay Baye Fall lañ bëgg a doon Baye Fall nag yombut yombut yaakaar naa Baye Fall mooy murid bu mat ba motti kon koo xam ne nekk nga Baye Fall sa sa sa war nga war ngaa xam ne ca coono dikkal na la te yaakaar naa Baye Fall lépp lu ñuy def ci dëkk bi ñoo ci war a njëkk ñoo ci war a mujj rawatina ndaje yi am kon li ngeen mën a jàppale sëñ Assane mooy ndaje mu fi amat ne leen jàpp nga lépp lu ci war ci wàllu liggéey yéen la war. képp ku fay ñëw da leen di jàppale kon ñu ngi leen ñaan boobaa ngeen commencé a ba sedd mujj fa ñu ngi leen ciy soññi ñun ñëpp ay Baay Faal la waaye yéen ñi nga xam ne yéen képp ku fi représenté maam Cheikh Fall dafa war a am noo mel am noo doxe mu ci liggéey mu ci comportement ak bu mu mën a doon nag waaw comme ni ma ko waxoon keroog réunion organisation bi rek danaa ko fàtte ndax day lu am solo ndax dama déglu sëñ Abdoulaye muy wax ne bépp képp koo xam ne wàcc nga ñu teble ci teble ci jaag jëmale bàmmeel képp ku la wax am nga beneen sëriñ bu sëriñ Touba boo mënoon a jóg doo jël yat jaasi ngay jóg xeex ak moom mais nag du taalibe nag du ay waxe kese sëñ Touba nag kenn mënu koo nax waaye du nax kenn kon nañ góor ci góorgóorlu ci liggéey ak jaamu yàlla liggéey sëñ Touba màggal gi nañ ñëw na nañ ci góorgóorlu def ci suñ kem kàttan ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jégalu ci kàddu yu baax xam naa may jox sëñ Bamba ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di jël nuyoo geeg ziar bi rek. ginnaaw bu ñu jaaree sëñ Mbinda mi nga xam moom lañ fekk te muy kilifa ak jotaay gi day mel ni xëy na nuyoo gi moom bu ñu ko joxee shérif day mel ni mat na sëkk mu jotale ko ci ñëpp ndax li fi jot mel ni sëñ bi mu njëkkee ci kàddu gi nuyu na ko muy sëñu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi ku mel ni bàyyi Ibrahima ak Tom Sall ñoom ñëpp kon jaar ko du jaar sax ñu ciy jaaraat ñaan gi it ba mu ñaanee la mun Muntaxa rek lu dugalaale say ñaan bi ñëpp ci biir kon nag day mel ni kon jotaay bi daanaka fekk ko laay na kàddu yi nuyu mbooloom yëpp nag dañ koy jox shérif rek bu ko defee mu jottali ñu ko mboolem ku fi toog di ñaanal waa barab bi yëpp it sañu borom guddal sañuy fan lool li fi xew jamono ji it yàlla nañu ko sañu borom làqal mu gëj fi lool te it kenn ku ci ne it yéene gi nga am sa xol yaa xam nu mu tol yàlla na ko sëñ Tuubaa gën a yaatal te nangul ñu yéene gi làqal ñu ko foo xam ne yàq du fa yegg ba mukk ni ko jëwriñ maam Thierno waxee it daanaka jamono jii ñu toll defe naa ni soñña dara muy saf lu dul màggal gi moom daanaka amul e, màggal gi nag daanaka kenn ku ci ne daanaka mën nga cee soññ sa bopp ndax lu booy ci nopp la loo xam ni tuwaar fa la boobu waxuma dara waaye boobu doon lim li fi doomu sëñ Tuubaa yi wax kenn ku ci ne jaaroon fi daanaka day doy sëkk ak soññe waaye la sëñ Saliou Mbacke di wax rek daan wax rek booy wax lu ñëpp xamul wax ci lu néew la ciy doy kon li ngeen mën a wax ci jamono programme bii ñu toll fi mu nekk nii ginnaaw màggal gi moom sëñ bi da kaa xam ni jaamu yàlla la ak berne yàlla gi ni ma ko waxee saa su ne maanaam waroon dañoo taw féexal ba la ci ñun mooy heure bu ñu xëyee dinañ jàng alxuraan jàng xasida li ci des nag mooy bernde gi te bernde moom kenn ku ci ne xam na ne addiye moo koy def jamono jii ñu toll nag jamono jii lañu war a wane sëñ Tuubaa ne yaa ñuy moom jooju Baay Faal yi daan baax tey jii la war a fës te mooy bu ñëpp ragalee ñu wan ñëpp ne ñu de ki ñu moom yaakaar ñu eh, waruñu kaa wutal jamono tey wax dëgg yàlla dollar bu wàcc ak bu yéeg lañ ci yemale ndax fi ñu féete moo gën alele àdduna moo gën leneen lu dul moom kon defe naa ni màggalu ren ji wóor na yàlla daa war a gàcceel màggal gu fi mën a jaar mhm. ba képp koo xam ne rek yaakaaroo ki ñu yaakaar nga xam ne ñun de ki ñu yaakaar wutaluñ ko ak maas ndax wax ji rek du doy waaye foofu mu ànd ak jëf confirmation doogu mën a am te nag mooy ñu aj baat bi séntu ko ca kaw mooy fu ñëpp ne jafe na fa rek ñoon di ko tegal ko sëñ bi te xamal ni ko boo ñu boo boo boo soxla woon sañu ruum dañuy jeex na ko olof yi waa waaye nag naan bu doon bu doon bu doon bu doon badar dañuy jeex mm-hmm. badar moom kenn mun a fexe ba mu dellu siwaat ci jamono mm-hmm. waaye jëf ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam ci yii rek la mën a feeñee mm-hmm. te mooy sëñ sëñ bi soxla ñu bàyyi yitte yi bàyyi lépp ñàkku fas yéene ba yitteem ji nga xam ni moom la am te kenn ku ci ne xam ne ni màggal gi rek la mos a woote daan ne képp koo xam ni sama mbég sa mbég la ñëw leen santale ma yàlla ci bés bi nga xam ni lépp lu mu am ci kaw suuf rek ci la ma ko sëñ borom defal maanaam waa ji dafa xaw a daw yarame sax ndax mosu ñoo dégg ci taarix fu sëñ bi wootee ndimbal lu mel noonu ci bis boobu rek la ko woowee te mëtoon mënoon ko sëkk nag ndax kenn ku ci ne xam ne ni ku daan samp ay baaraamam wala ngay xool jaww ji muy taw di maanaam maanaam malaaka sañu borom yi nga xam ne sañu borom da leen a jox ndigal ñuy jëf boo musaa xalaat dala sax ñu jëfe ñoom ñu mbir kooku defe naa ni eh, buy woote lu mel ni ndimbal bëgg ñoo dimbale ñun jaam yi ñoo tax loolu nag yàlla na ci ñun ñëpp ñu feeñ waaye wax ji lu doy faw jëf ji ànd ak moom kon ñu ngi leen di ñaan yéen ñi nga xam ñu ngi leen fekk ci tey ngeen am sas wu rëy rëy rëy rëy ci yoon bi ku toog ak ngeen war na leen kaa wax lay bàyyi faal bu murit lay bàyyi faal bu murit munoo ne ci yoon wi ñu wàcce la loo xam ni maanaam mooy coow li maanaam bàyyi faal moom kenn ku ci ne xam ne ni maanaam mooy coow li li xew tey ak li xew ak lu mës a xew moom mooy coow li ndax taarix daa mus sa am ci góor yàlla yi mus a wàcc ci jamono yépp nit ñëw di jaamu yàlla pur et dem ba julli ci géej nga xam fa lépp teere te buñ la geesoo ñu ni buntu yoonam koo xam ne la ci zaahir baatin ba nag moom duñ ko lijjanti waaye ci zaahir koo xam ne bu ñëpp di taxaw di sàpp julli moo nga fee beru mbir mu bay waar la li tax ñu teggi leen loolu nag moo jar a seet waaw li tax ñu teggi leen loolu moo jar a seet kon nag boo bëggee dem ba yam ñi nga xam ne dañuy def lépp ku baax war ngaa sax seetaat sa bopp maanaam lu doy waar la nag loo xam ne kenn ku ci ne boo wéetee rek war nga kaa xalaat li tax ma doon bàyyi faal lungu ñoom ñi nga xam ne nag ñoom lañ yaakaar dale ko ci Cheikh Ibra ak lim fi bàyyi ci njaboot ak ba ci kenn ku ci ne xam na ni boo musaan togg sax mu jëm ci sëñ Touba koy araama la ñam boo musaan togg mu jëm ci sëñ Touba da koy araama la ñam nii ñu ko waxee nag noonu rek la demee waxuma nag ngay wax sax sa kàddu gi jëm ci kaw kon ñoom dañ daan ñàkk ñoom Baye Fall ñoom ñoom ñi yaakaar dañ daan ñàkku rey seen bopp ngir njabootu sëñ Tuubaa gi pét kon nag boo demee ba yaakaar Cheikh Ibra wax dëgg yàlla sa jeexantal war naa doon ci ay mbégam te mooy fu ñu woote ak màggal wala ñu woote lenn loo xam liggéey sëñ Tuubaa la wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke da ngeen a war a miiraa seen bopp yéen da ngeen a war a bokk ci ñi nga xam ne ngeen a war a jaay ba mu jeex tàkk ngeen def ko ci màggal gi parce que suñu différence ak yéen dafa war di feeñ Bàmba ñu mun taxaw fii bu wóor jotee mu wóor lépp bu naafule jotee ba jëtam ba jëwam ñuul te bu joxe addiya jotee mu dax mu dàq joxe asan addiya bari sëñ Tuubaa asan war naa seen boppam dañ waxante dëgg daal loolu nag du ay mbir yoo xam dañ ci di ko waxtaan waaye kenn ku ci ne personnellement dangaa war a wéet xool sa li nga xam ne moom la daan def ba am li mu am ci kër Sëñ Tuubaa kenn amu ko ci nga jéem a roy ca loolu te it ñëpp benn bi nañ leen rek kër gu tabaxu ci kër gi moo ko ta moo ko tabax kër gu tabaxu ci kër gi moo ko tabax te ñaxam rek la daan def kon nag loolu wax dëgg yàlla war na leen cee gis te mooy bu màggal jotee ngeen jaay seen lépp def ko ci màggal gi bu liggéey jotee ngeen dugg ci waañ bi maanaam bu amee lakk-lakk bu amee ci waañ bi ab bay faa la war a lakk waaye keneen warta lakk noonu la daan demee bu waañ bi jeexee ngeen raxas bool yi ba mu set wucc yéen ko sikkat delloo ko loolu moo yëfi Baye Fall barke borom Tuubaa Mbàkke waaye nag bu sikkat amee ñu gis ñëpp te bu joon ñu raxas amee gisatuñu kenn kenn ku ci ne war ngaa seetaat sa loolu nag Assane mii la ñuy teg baax waxewuñ ko ngir leen néewuñ defee mu saam waaye nag dafa war di demee noonu ndax yoon bi kenn ku ci gis na ni noonu rek la daan demee muy xel ko ma foo mën dem ñooy njëkk te ñooy mucc mm-hmm. kon nag liggéey Sëñ Tuubaa bi ci réew mi wóor na sëñ yéen war a njëkk yéen a war a mucc kër sëñ Tuubaa gii nga xam ne nag moom li may wax sataa sataana képp koo xam ne defoo ci woon dërëm bi ñuy jënd terrain bi xaaral ba tabax ñëw waaye képp koo xam ne defoo ci dërëm bañ tabax ba noppi xaaral ba yëkkati ñëw ay mbir la yoo xam ne jamonoom day wees nga dem nag ba kër gi ne booy te defoo ci dara war ngaa xeesaat sa jëmb ci te nag bu ñuy wootee Kula sax yéen a fooroon njëkk kon nag ñu ngi leen di ñu ngi soññ sañu bopp di ko jaarale seen jëmm yi te xam ne maanaam ñun royukaay la ñu waroon woon ci yéen dañoo war a xool seen ak jëf di ci dox ndax ginnaaw yoon bi moom pour nit jaruñu ci faw nga roy Cheikh Ibra kon ñun ñi ne fii ci dëkk dañ leen war di roy yéen ngir jañu jaruñu ci yoon bi loolu nag eh, ñu ngi ñaan rek yàlla nañu oyof toll ndax seytaane moom du ñu bàyyi mukk sañu bopp réew mi ñu ne moo ci moo ci moo ci raw saa su ne mu taxaw sañuy wet lu ñu mën bëgg a jëf mu baax rek moom seytaane dina taxaw di liggéey di def lu ne rek ba jëf jooju tilim waaye nag sëñ Tuubaa mi nga xam ni moom rek a yàlla nañu ko garal gàllankooral yàlla ñu ko faatal yàlla ñu ko soreleel ba ñu ñëpp suñu xol yi doon benn ba li ñu yéene liggéeyal suñ tubaab fii ci réew mi ñu def ko defe bu kaw njot ginnaaw dañuy faatu te mënta ñaan balaa ñoo dem li yéene yi xol yëpp am yàlla nañ ko def ba mu jeex takk ñu doo ko demal ak moom maa ngi jégalu ci kàddu bu baax ñu yàlla nañu suñu borom may ñu fekk ay diwén yu baree baree bare te li ñu bu jaaxal ci dëkk bi dindoo ak jaaxal sax te jaaxle ndax sëñ bee ko nammee noonu yàlla na dem a dem ba mu gën a nooy ci ñun ci yàlla nañ suñu borom daal di doolee dimbale dañu defal feex ba bis bi ñu dëgmal ah ñu niñ ko yéenee ñu eggalee ko noonu li maam Thierno wax tamit am na solo ndax addee ji nekkul na ay wax rek mooy màggal il faut ñuy jéem a jaayante suñ poste te xam ne ñun li ñu yor suñ Tuubaa moom li ñu yabal fii nii moom la ndax képp kuy tukki rek. si sëñ Tuubaa nga ak ku mën a doon nag ndax lii lépp moo ñu ko xàllal kon bisam bu ñëwee lépp lu ñu am war nañ ko tey def li sëñ Bàmba wax léegi dara na la nga jaay sa male wala nga jaay sa kaax sax def ko ci yemale ko te xam ne mooy fay ki nga xam ne moom ngay jox muy fay nag te te te moom mi lay fay du jeexal loo am war nga ko cee mën a def waaw ndax fii lépp lu waaye am mooma bi ñu ñëw ci yoon wi képp ku ci nekk am am na foo jaar te bi ñu ñëwee ba yaakaar naa ba giyaakil foofu noonu aéroport ba ku fa wàcc sëñ Tuubaa ngay tudd yàlla mu sëñ Tuubaa dimbali ba ma jàll ci jàmm léegi kon boo ñëwee ci dëkk bi mënoo koo fàtte ndax dangay xam ne lépp mooma yàlla nañ suñu borom defal tawfeex dimbale ñu ba li nga xam ne moom leen yéene lépp ñu eggale ko moo xam muy ko suñ tubaa moo xam muy màggal gi nañ ciy ànd ak positif ñun liñ yor moomuñu ko dañuy dox rek suñ tubaa mooy eggale nañ commencé rek lépp moo koy eggale moom boo jógee jëm ci moo xam ne ci moom nga jëm da lay gatandu bu wëlbatiku topp sa ginnaaw di la gunge kon nañ xam loolu te di ko bàyyi xel te xam ne bu nekk ci lañ war a nekk rek sëriñ bi dinañu dimbale moo xam dollar bu wàcceek parce que bu liggéey ak yooyu nan nekk ci liñ war a nekk nan nekk ci sëñ bi rek liñ bëgg dañ koy am barke sëñ Tuubaa yàlla nañu yàlla defal tawfeex loolu ñoo dimbale barke moom Cheikh Fall Lambaye Mourideen Thanks.